Loum pour cinq minutes. mbokk yi nuyu naa leen monsieur le ministre de l'enseignement supérieur euh, dañuy faral di wax naan euh, ku ubbi benn école tëj nga benn kaso kon ku tëj benn école ubbi nga kaso moo tax may wax guvernement bu Sénégal mu dégg jàngalekatu université Cheikh Anta Diop de Dakar dégg étudiant université Cheikh Anta Diop bu Dakaru ubbi waat université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru monsieur le ministre 2014 ngeen commencé tabax ay amphithéâtre ak pavillon université Assane sec bu Ziguinchor ngeen waroon ko livrer 2016 ñu ngi 2023 juróom-ñeenti at. ba léegi livré wu leen dara jàngalekat yi université Assane Seck bu Ziguinchor sonn nañu étudiant université Assane Seck bu Ziguinchor sonn nañu lu waral retard bi kañ ngeen kay saafara monsieur le ministre amal ngeen bor établissement d'enseignement supérieur yi ngeen orienté fa ay étudiants li mu jur mooy étudiants yi fa nekk bu ñu buggee jot seen bulletin wala seen diplôme licence dañuy am jafe-jafe pour jot ko ñu leen di wax fay leen deux cent mille fay leen trois cent mille état bu ko mën naa leen joxe benn misaal université du Sahel te du moom rek donc loolu ban taxawaay la ci état mën a am pour sàmm les droits des étudiants waaye itam fay surtout boru établissement yooyu monsieur le ministre ñu bëri ñu ngi wax suñu ENO fu mu toll 25 juin 2021 ngeen commencé programme tabax 46 no ak ISEP boobu ak léegi lépp mu ngi ci fondation yi bindoon naa le mois de août boobu entreprise Batilante mu ngi amee loon 4 mois d'arriérés de salaire ses travailleurs j'avais tiré sur la sonnette d'alarme tey ñu ngi leen amel 8 mois monsieur le ministre qu'est-ce qui se passe ak lan mooy solution bi monsieur le ministre université numérique Cheikh Hamidou Kane étudiants yi bu ñu daanee dem master ñii ñu orienté leen ñii ñu ne leen dem leen fay ni université am na place mais on donne ça à ceux qui ont les moyens monsieur le ministre loolu foog ñu corriger ko monsieur le ministre ay étudiants sénégalais ñu ngi Turquie yéen a jox information yi étudiants yooyu ak parent yi ba ñu dem foofu ñu ngi dund nekkin bu métti ñu ngi sàkku ci gouvernement bi mu xool naka lay régler loolu monsieur le ministre des finances waxal ma gouvernement bi ne kontaan nañu ci li ñu libéré démb Marie Diagne Sène patriotes yi Ousmane Sonko nee na kontaan na ci yéen. nee na ñun ñëpp nañu focus Ousmane Sonko cinquième président un deux trois millions de parrains pour Bassirou Diomaye Faye